Ndiaye mën na faam Thiès waaw. soxna Awa yow yaay waajuru soxna Khady Diouf mi nga xam ne njort nan dañ koo bóom yaayam sama rakk la yaayam sama rakk la sama rakk ko jur may ma ko bi ma amee ñaari at maa ko yore waaw. lan nga ñu mën a wax ci jëf ji ndax wax ji bari na lool. Ah, jëf ji daal dëgg yàlla man xawma ku jëf Khady daal. tëdd na samedi ci guddi nee nañu woo si ko fa ma ko wër ba asamaan set mu feeñ doonum néew waaw. fan la feeñee. nee ñu dala xel la feeñee ci miir dala xel ba waaw. ndax dem ngeen ba gis ko jërën. man de gisuma ko man dew ma ci dew ma ci mais xale yi am nañu ca dama am dew ma waaw. coow li rumeur yi ni dégg ñu ciy wax ay doomi sëriñ ak euh, di ci tudd ay tur ndax loolu ci yéen la bàyyi ko. waaw rumeur yi ngeen ciy dégg nag man naa ngi yéen ñoo ci bokk yem man rumeur bi diggante alxames ba àjjuma laa ko xam àjjuma la ma leer carrément su waxtaan samay kilifa ne leen dama mu laaj ko mu ni ma awa ndaw moo ma wax awa ndaw moo ma njaay xat dafa ëmb ma yuuxu ba dëkk bépp daje aw mu doon ma doo def nii boo defee nii danga koy jaaxal danga koo nax boo defee nii dañ koy danga koy jaaxal ndax ndax ma ne ko góombal man ma doomi sëñ Moussa Fall ma ne ko ay ay doomi sëñ Moussa Fall ji na ma nga dal aw li ma dem naa fa man maa ànd ak xadi bu ko xadi yóbbul kayitu ordonnance bi bi ko waa hôpital bi jox maa ànd ak moom ba dem fekk ko mu toog ma woo ko na ko sëñ bi kaamil bi mun ma kan ma ne ko xadi Juuf mu lëng ko ne ko soxna xadi xadi te ordonnance jox ko mu ne ko demal bu subaat naa yónnee sa yaay ñaari junni waaye ak lu te teg am na ànd ak sutura mu yóbbu l'hôpital asamaan set xale yi dem fa mu jox leen mu discuter xale yi man mu discuter xale wax dëgg yàlla man xaw ma ko parce moom xaw ma ko benn yoon naa ko ma si gis xale yi dem discuter moom mu yëkkati 10 000 jox leen. xale yi ñoo yëkkati dix mille jox ma ne man duma ko laal parce que sama doom ji fukki at ak ñeent la am fukki at ak duma dem jàkkaarloo moom ñu koy xool ma xam ne xam na àdduna ba ma lu may ma boolewaat ko awa mu ndaw rek awa ma ko hôpital def test bi nekk ëmb bu ndaw bi nag mu yàgg noonu parce que ba mu matee sax bu dee mat na weer ci la yam parce dafa tiit ci boppam rek signalé ko affaire xale man nag xale yi aw mu ndaw xaw ma àllarba la ma ko wax xaw ma alxames daal yooyu benn dama ko ma tëdd nag mënatuma dara sama yaram yëpp ma tëdd sama jàmm mënatuma dara mais bi ma ko yóbboo ba ñu def écho beeg bi ma ko yóbboo ba seet ko xamal ne ma ëmb la ma ne nag dem ci ay waajuram jot na ndax ginnaaw naa ci lu ma leer dem ci ay waajuram jot na bu dee dama am ay kilifa ma waxtaan ak sama ay kilifa loolu dooy bàjjen ci laa njëkk a woo mu ne ma nekkal ba ma ñëwoon waxtaan ci damaa yor malade. ma téléphone mais seen mais mun ma dalal nit day dal te da ngaa ëppal fa mu dal coow demu fa ngay def ndànk ba awa mbub ñëw ma ànd ak ñoom ñu dem ginnaaw sama kilifa la wax ma loolu ma d'accord ñëw ci sama yaay wax ko loolu wax ma loolu ma d'accord ma toog toog toog déglu ma déggu ma ñu wax dara ma ne affaire bi mënatu ma ko xaar parce que bu ma ko xaaree sa xale bi mën naa bañ léegi damay dem léegi ma dem sama rakk bu jigéen bi ne ko nan dem nga gunge ma. sama rakk jigéen dama awa yow dangaa ëppal dafa kër sëriñ la xam naa si jikko da dem nekk fa di teel teel ak ay yuuxoo ko wax war a xam-xam koo te xam-xam man mii maa ko di may ànd ak awa mbub ñu dem fa waxtaane ko soxna si ne yaayam ku baax la bu ko déggee du ci daw dara ma de ko na fa sax nag ba jot a xëqanteeg sama rakk ak maaga seeg ak ku tafanga bi ma doon waxal mu ne leen na bëggal leen ma jàmm parce que lu ma gën di xaar rek muy gën di yàgg noonu nag laa waññu ko daal di ñëw si kër gi ba may dem avant may dem jox naa ko 700 mu jënd ci reer jënd ci sama yaay tëdd ci sama ginnaaw yaay bi ma demee bi ma retourné ñëwaat naa fekk ko ci sama ginnaaw yaay mu tëdd ma ma ne ko xadi bul génn de mun ma waaw yaay ma ne ko damay dem ci takk ga kon day ñëw ñuy takk loo moom ma dem ci takk ga bi ma toog takk ga ba ay 11 heures. ma génn ñibbisi ma ñëwee dugg ci may ga bi jënd reer damaa gëj a lekk depuis àllarba mun maa jàllale ndox bi ma yëgee affaire ëmb ba léegi mun maa lekk mun maa naan ma daal di jënd ci bi lekk ba ci yàgg fàllu ngi ci buntu kër gi taxaw ma dégg fa fàllu na ma yaay fa ma dégg fàllu am koy waxam ci mbedd mi naa ko fàllu seen waa de Xadi Juuf la ñuy wër Fall daal di ma Fall daal xadam ni ma yaay xadee ñaar bi ma ko duma ko ko seeti waaye ma ne duma ko seeti tibb dagg ci mburu mi ma doon lekk seex mel dañoo jàpp sama fii ma jóg daal dugg mbuubeen laaj xale yi ñu ne ma xadi fii la nekkoon léegi demoon na ba bay bëgg tëdd ginnaaw bi nag la am ku dugg ci kër gi woo ko ab xale góor bu dugg ci kër gi woo ko mu ànd xale bu góor bi génn ba ñu jaar ci yoonu raay bi ma ne ko yoonu raay mu ne ma ne ko yeneen xale yi ci des ñoom it ñu jógee ruq Baay Faal doon ko fa seeti ma dajeeg ñoom ci raay bi man leen da ngeen koo gis ñu ne ma déedéet man leen kon baax na man kon baax na kon xadi nekku fa xale yi neeti ma xale bu góor bi ko fi woosee ci kër gi ci weñ gee la taxawoon ak moom nii la jaar ak moom ci yoonu raay bi ma daal di génn man na dem ruq baay faal jot na ay deux heures ci guddi ma dem ruq baay faal fekk ñetti xale yu góor ñu taxaw ci àngal bi leen ma laaj leen turu sëñ bi ñu ne ban sëñ man leen ki dawal sëñ Moussa Fall xaw ma turam mosuma ko gis ñun ma sëñ bi tëdd na te ñun duñ ko yee man leen man wax leen ma fu nekk man ma yee ko xale yu discuter ma waaxu wuti ca kër ga ñu doog ma ne kër gee ca kees wala dëkk ma daal di jubal dem yee ko mu naka la génn daal may teg loxoom ñoom soxna si dalal dalal. déedéet dama soxna si dalal natt bépp ci sama kaw la tegee. ko mën na yàlla teg natt nangu naa ko na yàlla teg natt amul ma ko ci bu rafet amul benn problème nangu naa ko ne ko ah sëñ bi ma ne ko nangu nga ko de waaye tooñ nga ma faal ba nga ko bëggee mën ngaa ñëw ci man ñaan ma ko kon ma jox ko addiyee sa addiyee maam. moom ma gën nga yàq sama doon ji nii dëgg yàlla man ma loolu lépp day soxna si nattu la ma nar a wax ca kaw man ma ay soxna si suturaal kilifa la te xoolal ñi taxaw sa ginnaaw ma ne naa ko damaa bëggoon a ñëw ci sa yaay waaye ñi may xaar ñoo yëmbagul damay xaar ba soo ma mun ma waa baax na boo ñëwee sama yaay dinañu ko waxtaane lu ci gën a rafet dinañu ko def doo ci am dal lu la naqari dinaa ko yor li war ci moom dinaa ko def ci moom te bu wës dinaa ko takk. dinaa ko jël sama soxna ma ne ko waaye nag dem na de daw na de te daw bi mu daw mun naa man ko sa responsabilité la nekk ndax li ko tax a daw yàqu de mu ne ma ah alxames laa ko gëj a gis de nañ koy wax mu leer alxames laa ko gëj a gis moom sëñ bi wax ma loolu man ko ah alxames nga ko gëj a gis nga ko bañ a gis man loolu dara leeru ma parce que nee ñu ñu ko jël si fii leen jógee. en tout cas dem na daal sa responsabilité. ah man dégg ma moo ko wóolu woon kenn waxu moo ko wol woon dañ ma ne xale yi foo aussi fi lañ jóge foofu lañ jóge ci yoon raay bi lañ jaar mais kenn néew ma sëñ bee ko wóolu waxuñu ma loolu. continuer di wër continuer di wër continuer di wër di wër di wër di wër di wër ba 4 heures maa xale yi ma àndaloo ñu may wër la man leen dem leen ngeen tëddi. foo guddi na xam na dafa dem kër papaam ma tëdd bu ma tëddee rek tuuti rek mel dañ may ba max bu ma tegee sama bopp bi nii rek mel dama am fete ginaaru ba max ma mu tëre daan ne yaay naa man ko yaram bi mu yëg lu jàmm ci sama doom ji xadi fanaan am te sama yaram waa ngi daw rek yaay sama yaram xadi daa dem kër yaay xam naa daa dem kër yaayam guddi te ma daal di toog ba asamaan set ba asamaan setee ma jóg fajar te sunu dem kër yaayam di ko laajte yaayam di ma reetaan ma ne ko yow yaa tala ree moom talu ree sama doom ji réer ba léegi ma di ko wër yow nga di ma ree yaa ko tal nga xuloo moom mu nekk fii de ma ne ko nañ dem kër papa ñu ko caan mu ne ma ne ko nattu damaa dal ci xat yi mu ne nattu ma ne ko doomi seen Moussa Fall laa tëddee xat ba mu jëlee ci amul mu yuuxu di welli ci mbedd ma ne ko caan du nii mun nañ ko lijjanti mun ma kaso laa ko yóbbu ma ne ko d'accord naa waaye bu ñu dee dem police mu naa ma ne ko man maay dem man mi yor sama doom maay dem de sama médical mais loo gis rek duñ ko wax ci bedd bi di ŋaal na ŋaal wër gisuñu ko xaj na ma caat na ma nan dem ko sëñ Moussa ma gis xale bu góor bi ma ne ko nan dem ñu ànd dem nuyoo ma laaj ca turu yaayam yaayam entraîne ma wax ko lii ma la wax lépp caat ne ko dama koy tëj yaa ji dar gi gi da koy suturaal ma doom suturaal leen ma damaa nekk ci kër gu mag këru jaboot laa nekk suturaal leen ma këru kilifa te li muy nekk nekk nekk nekk gone kilifa la bu dee moo ko def bu bàyyi mu yewoo mu yewu dina ma ci wax lu leer te ko xam ne bu baax duma ci bañ dara ma ne ko boo bu dee moo ko def dama koy porte plainte ndax moom nangu na ne moo ko def ba yónnee na ma ñaari junni jox na xale ñaari junni na jox leen ko yaayam yóbbu ko ci hôpital kon bu fekkee yow lu nga ko nar a bañ loo man dama koy porter plainte yaayam na ma duma ko bañ loo yàlla tere yàlla bu ma ko def duma ko mës a bañ loo waaye suturaal leen ma rek te yàlla rek tax dem leen ba bàyyam yow bàyyam yow waxtaan ak moom ma daal di ñibbisee ma ñëw toog sama kër jéeg ba ci yàgg dégg ñu ne ah dalay nañ ko maa ci biir doom ci laa génne sama xale yi woo ma ñoom ñëpp dem nañu ba gis ko ma nga ca morgue ba sama doom ji dee ci anam bu métti xawma nu ko reyee ñu rey sama doom ci anam bu sama doom ji ragal bu ma waxee mu wax ju dëgër sax mu daw raxal laxasuma ndax ragal amul fit jàng alxuraan sama doom ji yiw ci boppam kolga boppam ma nga ca moom ba tey kolga lañ ko yóbbuwaale àllaaxira loolu la xam ci sama doom bi Khady Diouf fukki ñeent la rek ba ñu woon ma rey sama doom ji yoon toppal ma rek ba ma xam ko rey sama doom ji waa daal mu ci loxo yoon ndax yoon a ngi def liggéeyam ci moom ñu ne ma nga police ñu xale yu ndaw yi ne indi woon biig yi ko jël si woon indi nañ leen bi ci guddi man ba tey jël si bi yooyu yooyu yëpp dara leeruma ci fekkewu ma ko fii déedéet fii kenn tegu fa sa tànkam kenn ñëwu fii ñëwuñu ci kër gi waaye man de ñëwul sama kër man gis ko waaw ma xam ki rey sama doom daa yoon laa bëgg mu defal ma li ci war ba ma xam ki rey sama doom xaw ma nag ku ko rey mun ma ne kenn ko rey parce que fekkee ma boo kenn rey mais yoon defal ma ba ma xam ki rey sama doom waaw tey samedi mu amaat fii ah, ah. xam naa rek ku rey ñu rey la rek ndax ñoom jàmm ndax nag sonn nañ trop sonn nañ trop sama doom ji ma ndeyam dénk ma yaakaaroon ci lu ne ñu rey ko ci anam bu métti biñ ko rey wax dëgg yàlla man buñ ma reyoon sax wala ñu rey sama doom du ma métti mais yar dafa foor te bi xamul ko du man xale bi ay mbokkam buñ ko woowee sax bëgg koo jël mun leen sama yaay laxasuma rek sama doom ji laxasuma rek bëgg ma sama xol sama àddunaal yàqu na te xam naa bu ma doon yàlla sama doom ji du ma raw ma doon yàlla sama doom ji dugg suuf mukk ma teg ma may dox ci àdduna ndax fi ne defatuma dara ci àdduna defatuma dara ci àdduna sama at déedéet sama am naa ay doom mais moo ma gënal ci lu ma am sama rakk ko jur sama rakk ko jur may ma ko sama rakk ko jur may ma ko mu gënal ma lu doom ji ma sukk naaj ci kawam xale ji fa ma ko gënal xale ji fay samay bët mooy sama lépp sama doom ji ñu boom ko